wa rahmatullah maa ngi len di nuyu bu baakha baax di nuyu wa aduna di ñaan subhanahu wa taala yalla defal len jamm waaw alhamdulilah loolu man bo ma laaje dina ci sawara wax parce que ma ngi dëkk fi étage bi ngeen di gis ni fi la dëkk euh, liggéey bi nak yag na lii mom yag na euh, dama wax souvent ni man bu may def chantier bo bu canal bi dañ da amul won mbalit gis na ci suuf nonu dañ ko deur mais population bi ñoo fi sotti sen mbalit ba canal bi fat mais man bu ma fi soog a tuxu di def chantier sama doom yi dañu doon dugg ci biir canal bi nii di génn di foy ci beneen canal bi kër gi waa kër gee kër famille ba dama leen daan fekk ñuy toog di attaaya ci biir canal bi kon bokk amul woon problème ndox mi danaan jaar normal mais li mu nekk un sabotage organisé mooy naka ngay fekkee ay kër plus de centaines de maisons yu taxaw nii nga jël gis yoon ndox yoon ndox bi nekk nii nga jël sa canal jàkkaar loo ko ak kër fekkee sa càmmoñ jàkkaarloo kër sa ndeyjoor loolu c'est du sabotage organisé ndax yoon baa ngi nii waru ndox baa nii mën na def direct dem ba kër maam alaaji ba canal bi mu dem mais population bi ci boppam ñoo nekk ñun ñoo xam ne da ngay dafay mel ne da naan c'est des indigènes ndax ñoom ñoo jël seen ay saako mbalit di ko tëmbal ci biir ndox ñooy responsable inondation bi nit ki booy wax rek na nga wax ñaane ko te mu doon dëgg seeni mbalit ñoom seen saaki mbalit ñoo koy sotti ci biir canal bi dañ fee xuloo xeex a xeex xeex ba sonn man on m'a traité de tous les noms d'oiseaux du monde d'oiseaux sauvages du monde ndax kenn ku ci nekk ci kër gu nekk am nga ay bot am nga ay gants yoo sol man sama kër équipement baa ngi fi kii sii di moom dafa liggéey ci canal ba feebar mooy ki doon wax ak yéen léegi muy ak Pape Badou Cissé mais kër gi moom kër meen mbooja amul lu mu sonnewul dafay woote secours ci ay doomam mu ñuy jël téléphone am woo yeneen i copain pour ñu génn nit ci ndox mi mais ndox mi moom da doon jaar am na benn bonne volonté boo xam ne gis nga kër gëla ne fee ne maire kër maire mbooja moom moo fa defoon benn canal benn pont boo xam ne dañ fi daan jaar ndox mi di jaar ci suuf mais gis nga euh, par la manque de civisme de ses habitants ñun ñoo jël saako mbalit yi di ko ruux ci biir pont bi ba fatt ko ay pneu dañ ko fa daan ruux imam waroon na fee nekk tey ji dafa dem colonie de vacances mais moom ak titre moom yëpp danaan dugg ci biir ak suñu ay rato ak monsieur monsieur Diaw ñu xëcc génn pneu yi am na beneen benn bonne volonté boo xam ne fu def na fa benn passoire passoire boo xam ne dafa bëgg nit ñi di fa jaar di dem ci case de santé bi pour mën a faju mais bu ngeen paree ngeen egg ci passoire boobu ce sont les habitants là ñu jël ay saaku mbalit ay pneu fatt encore foofu pour mbax mi ban a jaar kon kay bu nawet bi ñëwee avec la bonne volonté bu maire bi ñu ñëw indi seen i xotti yoon bi ba mu dindi ba mu set ñu jëwaat mbalit mi les mêmes gens les mêmes personnes de ce quartier jëlaat mbalit moom sotti ko ce sont eux les victimes de cette inondation dañoo waxante dëgg rek. puis point bi tamit bu fekkonte ne ñu def nañ ko fu ñu ko war a def mun bañ a nekk un sabotage organisé gas ko daal di koy canaliser tabax ko ci kaw kon kenn du am accès ba di ci sotti mbalit c' est l' état wa sont partagés voilà sont partagés entre l' état et les de ce quartier. kon boog wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi jooy bu baax a baax a baax a baax a baax gis nga waa kër gii nag.

kër gi ñoo la mën a expliquer Pape Badou Cissé ak Sidi mi nga xam ne bañ naa wax ak maire bii ak man ñii sama kër gi nii ñii bi ñu fi ñëwee di chantier yàggul fii lañ ma fekk bi ñuy chantier bi mu ñëwee avec l'aide de cette dame là moom moo ma secondé woon ci ñu sëkk fii fii sotti naa fi juróom benn ñu charge latri boo waxee dëgg wax na wala déet fii man naa tax ñun ñi di fi jaar sotti naa fi juróom benn charge latri boo xam ne bu ci nekk trente mille laa ko jëndee bi sama doom bii ñëwee la ñuy cotiser man ak moom bu joxee dix mille ma joxe dix mille ma joxe ñu sotti fi même kii nu mu mooy kii xeer yu ngand yooyu maanaam moom cotiser nañ ko jënd ko bi ñu tojee boulangerie bu nekk bi marché pour sëkk ko yoon bii pour nit ñi mën fee jaar ba léegi suñu xale yi yëpp suñu buntu kër la ñu fawee xale yi yëpp ci suñu buntu kër la ñu xawee xale yi dëggal wala du dëgg te seeni buntu kër ñoo ko gasoon mu xóot te ba ñuy liggéey ñoom dañoo kii woon dañoo doon traité tous les noms boo bëggee set boo bëggee hygiène da dem dikk ci quartier résidence fii quartier populaire la. ma ne quartier populaire mais popula population populaire bëgguñu lu neex bëgguñu xet gu neex bëgguñu régime bu baax bëgguñu lii la propreté c'est la santé la santé c'est le développement s'il n'y a pas de propreté il n'y pas de santé si la santé n'existe pas

mais avec les conflits des politiciens nous arrêtons la réalisation du canal ce que vous voyez là c'est une solution provisoire Vous xam nañ ko fay def provisoire mais l'État en tant que tel l'État il waroon en charge canal bi définir selon les normes techniques dans le canal bi mais problème inondation c'est le facteur principal moi Euh, canal inachevé bi amul leneen loo xam ne nekk na fi lu extraordinaire su fekkee ne état bi defar na la le canal comme ni mu ko préconisé mu defar ko benn inondation du fi am fii six ministres ñëw niñ fi depuis deux mille deux mille trois ba léegi ah euh, notable yi fi nekk ci quartier bi ñu ngi def ay démarches di dugal seen xaalis def ay démarches dugal seen xaalis pour que ñu am ay solution provisoire parce que euh, citoyens yi mënuñu def la solution mënuñu indi la solution définitive état bi moo war des ak ses démembrements ñoo war indi la solution définitive mais fii on vit que de promesse ministre de jaar nañ fi maire yi jaar nañ fi di expliquer mais mënuñoo wax ne kan moo war a defar pont bi ak lan la war a mais la responsabilité n'est pas partagée c'est l'état qui est le seul responsable de la situation ñun fii situation bu ñu mën di am état bi la. waaw non y' a defee d'effet sans cause yow soo defee da un travail inachevé nga def ko parce que bàyyi fi ay gravats kooku mooy d' abord source mooy source bi soo ko bàyyee nit ñi ñëw complété ko par les les les détritus mais suñu ko réalisé woon xam nga kon duñu wax affaire mbalit non eh, xam nga le civisme kooku c'est la chose là qui doit être la mieux partagée du dëgg ah. mais quelles sont les conditions Parce que si le canal était réalisé fermé, que nous fait balai. Donc, responsabilité, vous nous population. la La euh, Responsabilité, l'État est engagé aux filles, mais de l'année. Autorité étatique euh, envers les élus locaux, parce que nous sommes préparés une audience avec M. le maire pour que nous puissions parler affaire. Là, parce que nous, les promesses là, vraiment, c'est tout un chapelet de promesses. à la longue on se dit que xëy nañu on nous prend pour des pour des kii pour entre guillemets xam nga ah mais ñun ngi def ay démarches actuellement def nañu benn réunion tey ñu ngi déposer benn demande d'audience auprès du maire ah pour mu wax ñu moom fan la ci lan mooy wàllam ci affaire bi daal non mënul indi solution moom rek mais daf ñu wax ne man lii mooy sama wall ci nag bi élus locaux yi comme autorités yi dëgg voilà mun nga wax ci solution pour provisoire yi bi population bi defar pont bi population bi population bi pont bi nga xamni sans ne répond pas aux normes ñoko defar population bi fété ni ñoko defar pour pouvoir accéder au poste santé xam nga et du ñu ngi ci axe canal bi ñu ngi ci axe canal bi donc ay bonne volonté ñoko gën sen xaliss xam nga peut-être amna appui ñeneen mais ay bonne volonté ñoko defar pour ñu mëna accéder d'abord ci poste santé bi ak ci benen côté canal bi xam nga poste santé poste santé ne rime pas avec insalubrité do am poste santé à quelques mètres am ay eau stagnante xam am ay dépotoir sauvage nga ne yow tu concours à la bonne marche de la santé hein c'est un c'est un c'est un paradoxe paradoxe là loolu mo loolu laa bëggoon apporter ci problème bi à poste santé bi ñu nga xam ne mu ngi presque à 200 mètres mu ngi à 200 mètres waaw waaw euh ñi nekk ci axe canal bi ñi nekk ci axe canal bi ñoom xam nañu avec les autorités xam ñu fan la seen démarche yi tool ak li ñuy wax ak ñoom li état bi wax ak ñoom. waaw non état bi jox na leen kii nu tuddati wax na leen jox na leen information la bon information jox na leen ko xëy na nag ñoom ñooy am réticence naan non du dina nekk wala du nekk mais je pense que tout ou tard ce canal là sera réalisé waaw c' est la waaw su fekkee c' canal fermé duñ ko duñ ko def def pour tort sauvage ça c' est ba muy muy kii ba muy am kii ba muy nekk ba muy ba muy provoqué ay inondation ça c'est sûr xam nga inondation bi c'est parce que canal bi kenn defaru ko suñ ko defaroon fermé ko kon inondation du am mais comme l'on dit rek ce sont les travaux inachevés de l'autre là moo indi li lépp ah